pour quatre minutes. mbokk yi nuyu naa leen monsieur le ministre euh, de la jeunesse euh, depuis 2012 ñu ngi leen di. depuis 2012 ñu ngi leen di wax ne fi ngeen jëm baaxul ngeen jëm fi ngeen jëm baaxul di naan leen li ngeen di jël comme dogal baaxul ci réew mi rawatina baaxul ci ndaw yi guléet ma d'accord ak yow sen seen document bi page sept cependant malgré les nombreuses stratégies déployées en faveur de cette frange de la population constituée de de jeunes âgés de moins de 25 ans les problèmes et les besoins persistent et soulève ainsi des questions liées à l'efficacité et à la pertinence des options politiques et stratégiques jusque-là adoptées dans le secteur. C'est la première fois ma d'accord ak yéen résultat yi ngeen am tey yi muy comme dogal depuis 2012 baaxul santul ngeen toog ngeen di soog a élaborer politique de jeunesse yaa ko wax ci rapport de présentation 2012 ñu ngeen di soog a élaborer politique de jeunesse mu dese leen at xam ngeen li ñu tàmm wax depuis mooy gouvernement boo xam ne lu ëpp lu mu mën créer mooy emplois at bu nekk chaque année mu am trois nouveaux jeunes demandeurs d'emploi 30 000 emplois chaque année ci 5 ans ça fait 150 000 emplois ñaata demandeur d'emploi 300 000 fois 5 ça fait 1 million 500 c'est normal mënu leen ko régler ndax lan jël jël exporté suñu ay emploi ndax jël marché yi jox ko tubaab lu neex ngeen jox ko entreprise étrangère yi donc c'est normal que entreprise sénégalaise yi mënuñu absorber li nga xam ne moom mooy l'emploi des jeunes c'est la faillite totale du président Macky Sall c'est la faillite totale du PSE monsieur le ministre tey le 29 novembre ndaw yi nga xam ne programme civique national jusqu'à présent seen payooru octobre kenn fayewu ko jusqu'au moment où on parle vingt neuf novembre seen payooru octobre kenn fayu ko voilà votre politique de jeunesse voilà la politique du président Macky et pourtant yow sa payoor musul tardé yow ministre et pourtant man sama payoor musul tardé man député ngeen bëgg ndaw yi retard de salaire arriéré de salaire emprisonnement chasse à l'homme wala ñu rey leen ngeen bëgg ndaw yi toog fii programme de jeunesse au lieu que nga doon dem di les plateaux de télévision vous auriez dû vous occuper de la jeunesse de ce pays là monsieur le ministre des finances aéroport du lu tuuti de aéroport lu rëy rëy

lii li mooy dëgg effectivement lii mooy dëgg génneel armoire génneel leen xaalis bi au moins fii ak trois mois yu cinquième président nous allons tout changer nous allons tout transformer radicalement ndaw yi toog leen fii cinquième président. Honorable Ndeye Satta Le Diop se prépare. Honorable. Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'entrepreneur et de l'emploi ak chers collaborateurs du ministre chers honorables députés maa ngi leen di nuyu monsieur le ministre maa ngi lay nuyu di la féliciter di la ñaanal ci sa nomination bi ndax xale bu am fulla nga xale bu xam sa bopp te xale bu dëgëral sa taxawaay jërëjëf monsieur le ministre maa ngi lay remercier ci turu population département bu Guinguinéo ci maison de la jeunesse bi nga xam ne wax dëgg yàlla ku ko gis xam ne euh, defar bu mucc ayib la nga commencé ko te buñ ko commencé ba léegi taxawul ñu ngi la ciy félicité bu baax a baax a baax maa ngi lay félicité aussi ndax euh, dañu dem Guinguinéo temps yi rek bi suñ bi ñuy bi ñuy kiyal suñ préfet bi ñu koy defal vin d'honneur ma gis nga def rencontre ak jeunes yi dox ak sa tànk di dem ci place bi nga xam ne fële jeunesse bi di nekk ngay waxtaan ak ñoom di leen sensibiliser ci xëyu ndaw yi loolu di politique bu am solo ma lay ñaan nag lancé boobu nga jël yal na yàlla def nga continuer ko te mu ànd ak ndam vraiment maa ngi la ciy félicité bu baax di la ñaanal euh, monsieur le ministre am na nag yóbbante bu ma xale yi yóbbante nee nañu vraiment ñu ngi rafetlu sa taxawaay li ngay def rafet na ñëpp lu nañ ko waaye nee nañ jakarta yi ngay joxe ñoom it bëgg nañ cee am seen wàll maa ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla sa maam laa sa bàjjan laa boo defutoon lu baax it ma téye suma gémmiñ mais damaa gis nga def lu baax jër a chers collègues. La parole est à l'honorable député Ndeye Satala Diop. Honorable Matar Diop se asalaamaaleykum euh, maa ngi leen di nuyu madame la président monsieur le ministre maa ngi leen di nuyu di nuyu ñi ngeen àndal ñëpp euh, man dama dama constaté ne depuis donc euh, assez longtemps bi ñu alloué pour la jeunesse chaque année dafay augmenter c'est pas pour autant que ñu ndaw ñi gis ci seen bopp parce que pour l'instant toujours jeunes yi amuñu liggéey euh, parce que liggéey aussi balaa nga koy am il faut qualification donc je pense que problème bi il faut le chercher ailleurs